tey nag li ji li def mooy li nga xam ni mooy tax ab quartier di développé mooy tax ab gox di développé dajale nit ñi waxtaan ak ñoom ci xam-xam la nga leen di wax dugg ci seen bopp te ñu fas yéene ko jariñoo kon rafet naa njortu ni suñu dee def politique war nañ ko def buñ ko deful it war nañ ko def te ku xamoon parti socialiste xam ni ba leen sëñ Modou sa jañ di teg loxo la ñuy gouverner. bi nga xamee ni dem na ba sëñ Modou Boussa Dieng wax Abdou Diouf ni politique bu ma ko kenn tuddati baax na baax na baax na ci at moom la Abdou Diouf perte élection yi Ablaye Wade jël nguur gi kon sëñ Modou moo doonoon politique te ci année boobu la sëñ Modou dem c'était en 2000 kon bu ñu nekkee ci dëkk bi bëgg a def politique nañ ko def ak sérénité parce que la politique c'est pas de l'animosité non non du saaga du wax lu bon du dig nit ki loo dul def gëm-gëm la. ak lii mënut a nekk naa ko wuti su ma ko wutee indi bokk ko ak sama waa gox mais léegi dem na ba ku jub ne man responsable politique la eh, mais armée mexicaine bu amee cacophonie rek mooy am mooy ak jaxasoo mais jariñu du am parce que kenn du jiitu ku nekk bëgg a doon général mooy mais mënul nekk il faut ñu nangu ni dafa am ñoo xam ne suñ borom moo leen nattu ndax politique il faut mu leer nattu la moo leen nattu ñu doon ay politique a nattu la ndax doo moom sa bopp sa njaboot duñ moom seen bopp te saabu bu jot ñu ngi dégg lu leen naqari seen papa te ka koy wax muy naqari bu ànd rek taxoon ak nekkante sañu ñoo xool kooku di toog ñu saaga la di toog ñu wax la lu bon dinañ la tuumaal ci lu nekkul doo moom sa bopp doo am sa intimité kon nga xam ne nattu la mais bi mu doonee nattu ba pare nañu xool naka lañ koy defee nan lañ koy sellale soo amul vision amuloo gëm-gëm ci ay erreur rek ngay nekk saaga wax lu bon te dañuy wax ni toujours les injures muy saaga arme nit ñu faible ñi la nit nag bu faible ça veut dire dafa nekk en carence d'objectif amuloo looy wax nit ñi ci wàllu développement pour mu mën leen a jariñ amuloo looy dimbali nit ñi ci côté social amuloo lenn loo leen mën a jariñ lu dul diw lañ jox affaire bi xaarañ dem jëli ko sàcc na ko lekk na ko loolu rek ngay dëkkee mais doo leen indil dara te yow miy wax loolu lu ñu la wax nga sàcc ko lu ñu la joxit nga sàcc ko doo ko indi mukk ci askan bi est-ce que kooku war naa def politique non mais léegi nag dañu jël ñooñu ñëpp. enrôler leen ci benn panier boo waxee ñu ne ah waxi politicien la rek te pourtant ku jaaxle seeti ko ku am problème seeti ko parce que loolu yàlla moo koy def ci ay nit ay relation la koy créer mais boo nee du ko def it saay-saay bi dem def ko jël yat wi teg ko indi ko gàll la ko te mënoo ci dara nañ koy defee nag moo jar a sellal ña koy def it ñoo mat a bàyyi xel gis nga réew mii plus précisément le Sénégal rawatina fii ci Touba muy jigéen ñi muy jeunesse bi na ngeen gën a dellu si seen xel te moytu ñi nga xam ni c'est des vertus de mensonge mooy ñi nga xam ni amuñu benn gëm-gëm lu ñu wax lu doon dëgg mais danañ fexe ba use sa mind def ci yow loo xam ni da ngay jàpp ne loolu rek ay dëgg muy lavage de cerveau te su amee rek réew mi jëmatul fu baax nous sommes en deux mille vingt-deux te 2023 les premiers barils de pétrole war na tuuru ci Sénégal kon saay-saay sépp ñu ngi jël seen bët viser ko ci Sénégal te dañu faral di wax ni réew mu am pétrole ak gaz réewum at réewum pëcc xoola pour bañ a àgg ci turu diis wi réewum pëcc xoola muy xeex xuloo waxante te bu ñu fàtte ni sëriñ bi bindoon na ni ndakaaru di ngeen mus a yendu ak bis bu ngeen dul bokk ak kenn mais ñun suñu njaboot rek ñoo nekk ndakaaru donte ñoo ne Touba lu leen dal dal nañu kon nañu def très attention kenn ku nekk mën nga def sa politique te doo lor sa morom kenn ku ne mën nga def sa politique te doo wax ci sa morom lu bon politique àndul ak tuumaalante àndul ak waxante lu dul dëgg àndul ak sos mais àndul aussi ak injustice man maay def politique rek. lu ma neex def nit te du mujj fen loolu amut fenn ñun ñëpp dafa am lu ñu tënk muy la constitution sénégalaise constitution bi même le président de la république la constitution dafa nekk au-dessus de lui moo ko tiim sañu koo bëtt rawatina ñi nga xam ni tey ñun ñëpp ay citoyens simple lañ kon loolu lu mu teg ni moo yoon rek dañ ko war a gëm respecté ko mais bu ma respecté wul man sama constitution réew danaa du ma respecté ña nga xam ni ñoo man ñoo ŋànk keno réew mi keno réew mi ñi ko ŋànk mooy la justice la sécurité les populations parce que ñun ñoo tax justice am ñun ñoo tax sécurité am suñu demee nag ba loolu nga xamante ni tey dañ daf ñu tënk ëmb ñooñu ñun joxuñu leen cër mais amatuñu kon république toujours dañuy bëgg di def lavage de cerveau ci nit ñi pour effacer loolu pour man bas ma làq samay ayib buñ ko nangu dañ ko bañ su doon loolu jiili mii mu ngi ci pouvoir parce que ki mu àndal état lay àndal mais taxut ngeen dégg ko ci lu ngeen ko wër dégg mënoon nay dem di def comme ñëpp régler ay dilam dem ci banque yi wala dem ci ay ñii fexe ba am dara ñëw tëdd buñ ko convoqué mu ni waa xayre jug leen parce que dañ maa bëgg indil problème non c'est pas bu ma tooñee nañ ma lijjanti su diw tooñee nañ ko lijjanti ku am dëgg ñu xam mais dañuy politique man may kilifa gi lu ma neex def te du mujj fen amut fenn su dee loolu kon ñi ne ci kaso yi nañ leen génne parce que ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk li ñu tënk loola nag li ngeen ci war a gën a travailler mooy ngeen prudent ci wax yi ñuy wax ci réseau sociaux yi sorties yi ñuy def ci télé yi ki ku ne ci dëgg ku ne saa bu jafe-jafe amee da ngay nangu ni man nañ ma def nangam suñu la tooñee mais ñu lijjanti ko sénégalais ñun ñëpp nous avons une tête et un esprit dañoo am bopp ami xel saa bu ñu fi bëggee technique lu mu attan ñun ñooy njëkk a bañ parce que sénégalais mën na ànd ak yow de nga tooñ. mu leer ko ni mu yow yaa tooñ mais ñu la bëggee fitnaal xolam dana sot day ñëw jàppaleel pare ni la sa waay nangam mais loolu bu demee ba amatul kon réew mënatul a taxaw justice bi buñ ko néewalee doole néewal doole sécurité bi te ku jaaxle dem ci yoon ku jaaxle woo sécurité mais kon fan la sécurité nekkati léegi fan la bëgg a dund nekkati léegi fan la bëgg a jariñu nekkati léegi fan la développement nekkati léegi loolu nag li ma wax ni nañ convoquer responsabilité yi ci biir néeg yi ci biir kër yi parent yi nañ jël seeni responsabilité ci seeni doom kilifa yi nañ jël seeni responsabilité ci seeni doom dafa ànd ak politique mais boo bëggee bàyyi sa doom rek ana diw nga ni ah kooku day balaa tër si une heure du mais attention c'est dangereux mënoo jur doom dugal ko école wala nga dugal ko métier mu màgg ba majeur ana sa doom nga ni minuit lay tëdd si wala une heure xamaluma ko dara mais kon looy yore soxna looy juree ay doom amatul sens fuite de responsabilité parentale bi nañ ko stoppé yaay it am ngeen responsabilité ci gone yi parce que éducation de base mooy tax xale màgg mën a xam lu baax mën a xam lu bon mais da ngay toog sa biir néeg une jot na nga sangu añ ba pare dugg sa biir néeg ni diw demal fawi damaa bëgg a nelaw mais bu génnee ci mbedd mi di fa xam nga lu muy nekkee mais sangu ko ba mu set tëral ko ci sa wet fexe ba mu nelaw ni nga bëgg a nelawee su yewwoo yewwaale ak esprit bu sen bu sain man ko namm pour demee nga mën a am yaakaar ci sa doom. ñun am nañ habitude di gis ay financement foog naa ne ñu fi toog ñëpp am mas nañoo am financement mais financement su fekkee da nga koo am te ni nga ko exploité baaxut du la jëriñ te doo fay kilo ko financé woon foog leen leeralee ci ni ngeen mën a yaxantoo ndànk-ndànk pour mu mën a jur dara foog naa leer na nañ kon loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax surtout koor gaa ngi ñëw fàttali na leen aussi nit ki it da am objectif man fii laa jëm bala ngaa sos dara waaye ñëw rek ñu jox la cent mille franc wala ñu jox la cinquante mille franc xamugoo loo ciy def bala ngaa uti cinquante mille franc wala cent mille franc xamal loo ciy def ba pare loolu mooy objectif boo ko amee it nga boole ko vision bu mat sëkk lépp loo xam ne da koy dala koy yàqar nga nga fekk teel teel ko faa jëlee foog naa ne loolu Serigne séeru fàttali nañ ko ci biir waxtaan wi engagement nag mooy tax lépp dem gëm-gëm lépp looy def il faut am ci gëm man dama nekk ndaw koo xam dëkk xayra bi ma gisee vision jili mu neex ma ma topp ginnaawam ànd ak moom tax nag ñu jël mouvement bii nii créé ko. tuddee ko mouvement sama baat sama gox sama baat sama gox nag mooy sa kàddu sa biir gox suñu gox xayra la Touba ñun nag boo nekkee sa biiru gox nekk ak te doo leen wax li nga xam ne moom nga mën sa kàddu chaque jour koy wàcc moo tax ñu nit ku nekk da ngay sàmm sa kàddu ba tax ñu tuddee mouvement bi sama baat gox sama baat sama gox nag moom. dafa nekk mouvement boo xam ne jël la ñëpp ay portam surtout ndaw yi jeunesse bi dëkk Touba ñëpp tijjël nañ leen seen port parce que bëgg def nañ ko mouvement boo xam ne mouvement jeune la di jàppale jili sañ ñëpp nag lañ ko bàyyiwuñu kenn comme noonu nag ñoo xam ne jeunesse bi ñoo yor développement bi comme ni ma ko waxee sànq ñoo xam ne ci kanam tuuti élection législative lañ jëm te buñ jëmee ci élection législative dana bëri ñoo xam ne dinañ dugg fii ci biir Touba ak li ko wër di wër jeunesse bi ku ci nekk nag bu ñëwee ak na muy ñëwee ci yow ñu fexe jàpp suñu dignité ak ngor goo xam ne nii leader yi ñu yàlla dénk ñu jàpp leen te xam ne kuñ ci jàppale lu mu mën a wuti ci àll bi itam bu ñëwee fii la koy indi ñoo koy bokk comme noonu ñun ñëpp ñu xamee ko noonu jàppale ñi nga xam ne ñoom lañu am fii ci xayra ak ci Touba di jaajëfal ñëpp. di leen baalu àq. ndax dara gënul neex nga nekk si ab koñ te heure boo wootee rek ñu dagg seen yitte yëpp ñoo toog te bi ngeen fi toogee ba léegi yàgg na de depuis que 5 heures ba léegi yéen a toog fii di xaar te bu fekkoon ne si maanaam dañoo ànd dañoo comment li ngeen xalaatoon ne maanaam lii nii ay nax lañ leen fi indil wala ay leneen ba nëgg nit tasaaru ngeen koy dem na sa yoon bu yàgg parce que loolu lépp nag lu ko a mooy bëgg gu ngeen ñu bëgg ak jàpp gu ngeen ñu jàpp moo waral seen toogaay bi tey ba pare may sant Jili Sey sama càmmiñ parce que ba àndak moom ba léegi mën na ñetti at ba ren di si ñeenti at ñu def politique man ak moom chaque jour dañu daan ànd dem réunion suñ dee ñëw jiili say mu duñu am paas de jiili mooy lamb poosam jël taxi ñu ànd ñëw. Euh, maa ngi leen di nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp tey di leen jéggalu bu baax euh, toogaay bi yàgg na ndax euh, mun na ne biñ jullee taakusaan ba léegi ñu ngi toog kon ñu ngi leen di jéggul si toogaay bi guddi na. wax ji jërut muy bari ndax lii boo gisee tey ñu woote ko dadina mënuñu ko def te li nekk sunu kanam mënuñu def lii walla ñu jël lii di defaat leneen lu nekk sunu kanam kon loolu moo waral ñu bëgg a def benn mouvement tuddee ko sama baat sama gox mouvement bi nag dadina ay ndaw ñoo ko créé mais du pour ndaw ñi kese. jigéen ñi ñu ngi ci biir sunu yaay ñi ngi ci biir sunu jigéen ñi ñu ngi ci biir noonu la ñuy tàllal loxo ñëpp ñu dugg ci mouvement bii tudd sama baat sama gox sama baat sama gox dafa tënk lu baree baree bari ndax mouvement nag comme ni ko ki doon indi waxtaan bi waxe léegi ci politique développement ñun li ci ëpp ci la ñu bëgg yëngu doonte ni ko sama jigéen waxee politique mayeguñu dara waaye li ñuy amaku suut xalaat naa ne ñu ngi koy bokk ak sunu waa koñ kon am loo xame ne bëgg nañ ko jëmmal ci koñ bi te mënuñu ko def ñun kese moo waral ñu bëgg see ànd ak waa quartier bi yépp waaye waa Touba yépp kon ñi ngi tàllal loxo ñépp ci mouvement bi nga xamee ne moo tudd sama baat sama gox ñu ñëw bokk ci ngir développement bi nga xamee ne bëgg nañ ko ci Touba. bëgg nañ ko si xayra bëgg nañ ko si daaru mi na madiyaana ñu mun koo am loolu nag mooy lu mel ne ay financement comme ni ko sunu grand bi fi jógee waxe léegi ak yu baree bari yoo xamee ne war nañ ko mun am ni ko yeneen ko ñi di amee kon ñu bañ a guddal lii moo waraloon woote bi ngir wane leen ne tey am na lu juddu bees tudd sama baat sama gox xam naa ne ak ay fan yu néew Euh, dinañ jëmmal bureau bi ngir songu li ñu bëgg liggéey kon ñu ngi ñaan ñun ñëpp lii nga xamee ne sumb nañ ko ñoo dugg si bisimilahi rahmaani rahim mais man si àggalee ak alhamdulilahi rabbil alamin euh, li sama mbokk yi wax nag muy si leader politique dafa métti euh, li tax mu métti mooy li naan nattu la bu la yàlla nattoo nag nga di ko def da ngay gëm ne yàlla sunu borom moo la nattu li tax loolu mooy niñ koy déggee si leader yu mag yi noonu lay noonu lay amee si leader yu ndaw yi di nga dégg lu ne euh, dinañ la waxal lu ne en même temps dinañ la sosal lu ne waaye li ëpp solo mooy nit ki toujours sa dignité nga sàmm ko ñun ci loolu la ñuy dox ba vocal bu ma mën di def wala ku may mën di toogal dama naan man comme fii laa juddoo muy kër gi ngeen gis man fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge fi laa jànge fi laa takke soxna sama njaboot ñi ngi fi kon yaakaaruma ne dinaa am yeneen yoo xamee ne dinañ ko def wala ñu di ko wax loo xamee ne dinañ jaar benn koñ di sëgg wala ñuy am mbedd mu ñu tegg wala dara